dal leen ak jàmm ci sen émission édition recréation comme niñu ko tam di len défalé di dinañu dem ci gox ak goxaat yi gën a ci biir Sénégal waye itam dinañu len démal fofé ci bitim réew ngir yalla ak dëgtal leen programme bi di recréation récréation ak lak lañ koy amalé atum ren ñu fas ko tambalé tàmbalee ci troisième édition bi dekk bu am histoire ak Sénégal waye dekk bu am histoire ak diiné ndax ku ne Ndar sa xel day daal di dem ci Seydi Hadji malik si ku ne Ndar sa dem ci Sëriñ babaka waaye ku ne Saint-Louis saxel xel day daal di dem ci Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum du ñu def lenn lu dul daal di dem taaxirlu li nga xamante ni moom la ñu Souleymane Bari daal di andil foofee ca Saint-Louis. jërëjëf Ndiakhate ni ko waxee tey ñoo fii ci Saint-Louis nekk leer waaye nag mën dara. dañuy sant këram jaajëfal ki nga xam ne tey ñi nekkee ci vacance ñi nekk ci nawetaan nekk ci leneen moom moo tax tey yitte woo xam-xam ak liy defar nit les say Cheikh Mouhamed sa xaasi nga xam ne waykat bu foon na ko ni ko yaa Moustapha yaa malazal xaairina wa yaa man haaba bi xubbi l ahbaabu wa zamanu ndeysaan mu ne ko xusni ila xadratil anwaari yaa amali anta dalilu wa xatu wi taayi o sañinu jërëjëf sëñ Moussa Fassé tey ñu ngi ci récréation su ne récréation nag mu nekk barab bi nga xam ni dañ ci tàggat ay nit xamal leen li ñu xam ko moo tax nañu fii ci Saint-Louis su ne Saint-Louis nag saint yi am na fu muy dem ndax dëkk la ci dëkk yi Saint-Louis nekk dëkku yiw dëkku leer dëkk mag ñu baax ñi mag bi dafa wax ni suñu fonkee dëkk ñi ko dëkkee ñoo tax moo tax dañuy leen di bàyyi ngeen découvrir Saint-Louis ngeen xam bu baax suñuy wax ndal ak daye biñ koy jox ci li ñuy dund am na lu tax kon da leen di bàyyi rek ngeen suivre découverte pour ñu xam luy Saint-Louis dëkku teranga diine aada ak cosaan seen wi di Sénégal wala Ndar di dëkk bu am histoire sanc ko ci atum 1659 cette ville de centenaire di Chi bu ràññeeku ci anam bare structure coloniale du moyen de de ñu fàttali dans l'ancienne capitale de l'AEF, ba de ñu patrimoine mondial de l'UNESCO Da, donc de diine yar ak à waral mu am chance su ganale nitu yàlla yu am bi di Cheikh El Hadji Omar Foutiyou Tall Ten. ki que não nos sahlan yudeke sunye mikro kidi ima bukra mosquée bu saint louis bu wax ni tuti histoire yoyu ñi ngi fii tey si juma ndar grand mosquée de saint louis muy masjid jamia bu cheikh alhaj omar al fouti radiallahu anhu nga xamni ni soob na yàlla magu ndar yi amone yene taxawal juma bi ñuy xol ba yekni amna kilifa gu mag gu mag gu fi nek ku ni wax Cheikh Omar al Fouti radiyallahu anhu mu ñew fi ñu sem seti ko biñ ko demee seti waxtaan ak mom mu am yéene ñew and ak ñom jox leen digal wutal leen place bu nu defee juma lolu mi ngi nek ci atum 1825 ci la and ak ñom magu ndar yëpp fu ñu ko yobbu ni ko fi dañ fa bëgg def juma mu leen fi du place bi ñu koy mu and ak ñom di wër di wër di wër ba aksi ci place bi bi mu agsee si place bi mun leen fii moo mën a nekk jumaa ji mu rëddal leen ko ñun ko mais fii dafa jege ndox mi fi kaw ndox mi la mun leen def leen ka fi fii mooy place am fi eh, jumaa ji nekk fii looda bi waa looda ak waa sindoone waxtaanee ñu ni kon comme jumaa ji mi ngi fii looda place eh, imam yi nañ di jóge si sindoone ñu defee ko noonu ñu waxtaan si ba d'accord si ñu ngi ko commencé woon si mi atum 1825 mais ñu ngi ko unique euh, euh, atum 1825 bi ñu ko si commencé dafa taxaw ba atum 1937 la continué waat waaye ñu ngi ko inauguré 1847 ki ko inauguré mooy Samba Abdoulaye kan Samba Abdoulaye kan moo ko ñëw moo ñëw jiite julli gi si diggalal Cheikh El Hadj Omar Fouti yi Samba Abdoulaye kan boobu nag moo jur maam Abdoul kan Kane mu jur Soxna Asu Kane mu jur Serigne Cheikh ak. Serigne Cheikh jur Serigne Moustapha tabaarakallaahu kon jumaa ji ñoom dañ fi am cër bu rëy fi côté yëpp su ko defee si 1847 boobu nag ki fi njëkk jiite nekk fi imam moo di imam Ndiaye Sarr mu jëlee woon ko si mu nekkoon boroom xam-xam nekkoon ku mag imam yooyu di dem di dem di dem ba imam Moussa Diop ñëw imam Alhaji Omar Diallo ñëw imam Alhaji Abdoul Majib Diop ñëw ba imam Cheikh Zeynul Abidin tey ki fi nekk moo di imam Ahmed Tidiane Diallo de binu amne nu amna ben ji bu ma a ñew ni jumaa dafa moy penk wa fekk booba cheikhu genn na ndar binu nu jëlee cheikhu mu ñew ñun ka dañu dafa am ben shérif ben sëtu yonenti bu fi ñew nee na dafa moy penk mu taxaw fi ten bi nek mak ñepp wërk mu jël yatam bi durk diko dor fi mu nan leen na xam ngeen fi ma koy dor ñun ka fan nga koy dóor mun leen maa ngi koy dóor fi buntu Kaaba gi. mun leen jumaa ji ak Kaaba gi ñoo ñoo jàkkaarloo ŋàkk kon jumaa ji jumaa bu njëkk si Sénégal wala si Afrique de l'Ouest sax mën nañu wax ni mooy première jumaa première grande mosquée si Afrique noire. loolu nag ñu ngi ko njëkk rëdd si 1825. Cheikh El Hadj Umarul Fouti radiyallahu taala anhu wax nañu ni euh, moom ci boppam moo gasal boppam rëdd ko wone. ñu àndandoo ak ñi nga xam ni ñoom la àndandoo woon ñu gas teen bi jumaa ji nag euh, loolu mag ñi ci seen bopp dañu fonk ndox mi nga xam ni moo fi jóge am na euh, benn feebaru bët bu fi nekkoon bu ñu tuddee woon Apollo waaye mag ñi nga xam ne ñoo sëlmu ci teen bi ci ndox mi ñoom ci seen bopp ah ba ñu sëlmoo benn yoon euh, yeggunu ñett seen bët wér di ci barkeelu ndax barke boobu nga xam ni moom la ci Cheikh Alxaaji Umarul Fuutiyu radiallahu taala anhu def jumaa ji daal fi fi cosaan noonu la ko wàndar Ndar amee gannaaw si Alxaaji Omar ndax dalal na Seydi Alxaaji Malick Sy Maodo mu samp daara jàngal mag ak ndaw taxawal zawiya kër gi ngeen di seen bi la Seydi Alxaaji Malick Sy dëkkoon ak soxna Roqaya Njaay ba am fi Sëriñ Babacar Sy alxalifa ci atum 1885 ci nekk bi ñuy jàkkaarloo ci la gën si àdduna waxal abiyaatam ya wa innani qad kuntu min ahlin dari wa maskani biha la dari an dari اثنان أربعون قل ذاك العدد لنمرة الدار إذا رمت المدد wax ni ku may la ci na xam ni maa ngi bokk ci waa Ndar dëkk villa 42 rue André Lebon tey rue André Lebon boobu lañu ko duppee ويوفي خليفة أبا بكر سيد في أتو 1925 دار دلال بنين غان بني وخ سيد أحمد التجاني سي المكتوب برد بني نيك دي فيلا 389 إل دي نور دو فرانس لغني أدنى كي نيك بني جا كارلو مني فتلي أبيا تنبا ذهبنا إلى خير الجزيرة حسبة ومن إلى خير الجزيرة من ودن ويوخ من دار ويغان دي ndax dalal kii di cheikh seydi mouhamadul moustapha si al maktoum keroog tefes gi ngeen di seen nekk ci jëll mbaam fi la terse mu doon xew-xew bu amoon solo loolu te bëri woon ay mbir yu yéeme kii di abdul karim soggu moo ñu nettali bi fi ñëw nag ci parawet bi la fi ñëw boo na métti lool teew daan jële ko fii si dog bi mu ñëwee fii la teer yi mu fi teere itam booba eh, ku ñu yox Pam Mbay oustaz moom moo indi woon yàlla dogal moom it moo samp section jëlam booba jamono metti woon waaye ñu fi ñëwee ba dem kenn ku nekk yëgaat ko sa bopp si la mu defoon joxaat ko may ndax maa ngi leen ko jëkke jooy mooy dex gi boobu am dara lu wax ni nit yàlla fu de dem bu fay jóge dana am waaye fekkoroon na metti woon na dex gi amul woon waaye ba wuñ naa ne la wuñ naa affaire ma bisa fale ni seen pétan ba mu ngi jaar parce que xam ñu ne année boobu defe naa ne lépp luy xeetu jëpp ak li xeetu xéwal kenn ku nekk yëg nga sa bopp xam naa ni maaraamu ñëw ñun tabarkala tabarkala lu amul solo si jël ba am ti li gënoon am yéen tim mooy lu toll doomu sëriñ ñi di jël avion yi gën la moom ñu teel gaar si bés ñëw ak tabarkàlla ku wax ndar sa xel dem ci géej ak dex waral ñu ñëw fii ci bël bi ngir wane leen melokaanam dañu fàttali marajal bahrayni yaltaqiyaan baynahuma barzaxun laa yabxiyaan ndar di dëkk bi dund ba faw doona li yor doon li sax dàkk dëkku teraanga waral ñu naan teraanga Avishanshu dalal yalla kenn du ko naatable mooy ndono li muy sagoo te su ko naatable ndax daal mooy gën di dëkk. ndar gën gi dëkk nekk dëkku leer dëkki borom yi xam-xam récréation nag am nañu thème central seen tem central soo ko dégloo nga xam ni am na suñu jëm dama leen di bàyyi rek ñu leer leen thème central. comme ni ko capitaine waxee te mooy récréation parce que yàlla bu muy wax secret bi tax mu indi dund ak dee dafa ne li yëpp lu wakum ayyukum ahsanu amala pour xool kan moo gën a rafet jëf. te loolu compétition lay doon te pour nga bokk ci les meilleurs dafay laaj nga nafa sa dund évaluer évaluer sa bopp xoolaat xoolaat say jëf li ci jaar yoon ak lu ci jaar yoon li ci jaar yoon. boo xëyee nga koy gën a defar mu jaar si jaar yoon nga defaraa ko bu mu baax. moo tax sëriñ wax ni Maodo bañ ko laajee moo la moo waral gàmm dafa ni gàmm feetu anniversaire taxu pour nafar dund moo tax. mu wax ko si bëy bi ala umrun wala mustan rujuhu fa ar abama as aydu sanata rati Maodo wax ni euh, si compétition bi mu waxoon sànq. Moy euh, maud mun neena dina fex ba bok si euh, top 5 yi te moy ñent khulafa rashidin fu ñu taxawee mu juróomeel leen té lolu mi ngi koy amé si nat bu muy nat dundam si dundu yonenté bi ak fu yonenté bi tegoon tankam mu tek fa tankam te même principe bob la nit ki war am and ak kilifaam té moy yalla bu lo joxé kilifa bi gën ci jikko si xam-xam mu jox la tëralin bi gën si walu yalla war nga uh, xolaat sa bop baña baña gestu tamit lepp lo nga xamne mëna la yakal ci mbirum aduna ak ak nit yi nga xamne dañu faté principe bi tax yalla indi len ci kaw suuf ñu mel nonu nak yalla dafa genn seen xol ñom uh, ba banexu aduna rek lañu mëna top man yahun hawa na alay mali jurhin uh, bi mayiti ilamu ki sagan bu def bêtise du yekni sax mi ngi ci day mel ne rek mu fekk néew bu tëdd mu koy euh, jam te néew bi yëgul ni sax yaa koy jam te pour nga réussir sa dund foog nga moytu leen parce que nit dafa war di natt dundam fépp fu mu toll si diggante boroomam ak kilifaam xool ndax li kilifaam tëral mi ngi ci walla nekku si bu fekkee mi ngi ci muy bu xëyee mu koy gën a jekkal bu fekkee nekku si bu duggaat si rang bi xam naa loolu lañ amoon rek pour définir nafar dund nafar dund mu nekk thème central su ngeen déggee thème central bi nag nafa dund récréation 2024 bi boo ngeen xam ni sa classe la ñuy nekk sa daara ji la ñuy nekk nan dem sa daara ji dem sa classe am xool lan mooy liñ fay jàng lan mooy programme bi ban contenu la am yan ñoo koy taxaw kon pour suivre xam lan mooy xew sa daara ñàkk jàng ak ñàkk yar doon nañu kilifa gi dul baali abada xam-xam ak teggin nekk au centre di programme si récréation yi. récréation di baat bu ñuy yóbbu si njàng ak njàngale ngir dimbali nit mu am évolution atum ren ñu indil ñu programme bu am solo lool. daara su biir yi xam-xam di feeñ si anam yu wuute lu mel ni ñu ñëw ci sunu ñaareelu leson ci wàllu fiqhu gannaaw bind nañu leçon bi ci tableau bi. ngeen copier ko ci seen kaye li des mooy ñu lire wa qaala jadduna al maktum al sayid al cheikh ahmed tijaani si radiallahu taala anhu tanha an alfaqshai kullu salatihim illa fa kullu salatihim faqshau فهمتم؟ رن النوب سقل الدوائر Nah, si xasida bu maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum di ñu yé ak di ñu jàngay ni day do wara tëddee légui bu ñu waté suñu leçon tay bi ya xaar na ni jangoon nañu ñaari bayit yi njëkkoon ci bayit bi lu mu tuddu way bi كل الدوائر لغي داماي واخ سوما واخي ابره ما جوخ كين مو فالحق يعلو بتنزيم وتصفيه ما اخسر الحق ملقوتا مع الحذف من واجب الفرد في اسلامه علنا انكار مصلحه تدعو الى السلف كمان بابا فالحق يعلو بتنظيم وتصفية ما أكثر الحق ملكوتا مع الحدث من واجب الفرد في إسلامه علنا إنكار مصلحة تدعو إلى الصلاة لأنه فقه النشيد هذا من جنب المتجن متلئ القرآن القديس وأقيموا صلاة وآتوا زكاة واركعوا مع الراكعين الآية توجد في سورة البقرة مام شا أحمد تيجان سي كابتن نينا يو كن دوكا خطو دان كوي واخلين tàmbali ci alquran fiq hadis nashit ba si adab ak réykut ci réykut boobu lañuy taxaw woon leen as lëf si ni muy demee ci daara yi. incha xam naa comme ni mu ñëwee si technique bi premier point bi dañu wax ni dañuy liir présentation générale bi. bi ñuy waaj déglu ni kañ lañ ko defoon ak source bi ak ñaata minute la bu ñu paree ñu génnee grandes lignes yi bu ñu paree tamit ñu génne waale concept yi. mooy baat yi nga xamni dafa dafa laaj ñu léral ko bu ñu paré fofu ñu def ay questions de relance manam ñuy poser question si euh, baat yooyu noonu mbooloo mi ban dégg-dégg lañ ci am bu ñu paré ci question de relance yooyu noonu ñu clôturer ko ak euh, à retenir manam li nga xamee ni mën nañ ko déggé wala bok man nañ ko jëlé fi si audio boobu réekud yoyu nek ay moment yu sacré yu may njobot gi ñu rot rota ci cadeau mam Cheikh Ahmed Tidiane si capitaine ak Seydi mohammedul mustafa si al maktoum ngir yok seen bind ak seen deg mu doon occasion ngir weccante xalaat jonjonte ci xam-xam lépp ngir jox nit jumtuwaay bi yëwanal yokkuteem de création yi di wéy di doon bërëbu jang ak jàngale saxal tak ndig kan mam Cheikh Ahmed Tidiane si al maktoum yeeg da ak bi tafakkur wa taamuqin في pasti كان أسلافي comme ni ngeen ko gisee euh, daara nga gis xale yaa ngi jàng li si bi ville bi ñëpp ànd di jàng waaye ba tey ci récréation ni nuy ñëwee di tàggatee xel loolu la ñuy tàggatee yaram su ne tàgg sport ñu gën ko xam yaram mu nekk réduire le stress di di confiance en soi mu nekk activité bu ñuy pratiquer ci biir récréation mu doon luy defar yaram di anam yu bari bi sport am te am solo ñu di anam bu te ayib

coach Daouda ini nasi lera. leeral. dellu sun tem premier semaine écoute active xëy écoute active objectif rek la comprendre l'importance d'écouter activement les consignes. objectif bi nga xamante jox nañu ko pour ñu war ko atteindre mooy ñun ñëpp ñu àndandoo si ñuy mën di écouter instruction yi nga xamante ñu ñuy jox parce que ki lay mën na di wax ngay def aussi mën na di def ngay def. aussi itam mën di def li nga xamante ni yow du la ko wax ta nga xam ko xeyna lool non dañu ñu mëna permettre ñun ñëpp ñu am si enseignement bu jik ba lepp li nga xamante dañu wax nañu ko ñu mën ci am résultat. faites ce que je dis et non ce que je fais ak lu ci mel ni coup de tête ou saisie nek ay points ci biir sport boobu duñu fàtte mukk tournoi du capitaine comité bu Saint-Louis dess ci ginnaaw benn yoon dalé ko ci football wala handball comité Saint-Louis mi ngi kay organiser ci anam bu jaar yoon. ah jaajëf. ñu ngi fii saint ba tey comme ni ngeen ko gisee jàng nañu waaye tamit ci biir daara am na yenn ci xew li nga xam ni daanu tàggat nit ci xamal ko li nga xam ni war na xam ci dundam lii jëm ci wàllu diine lii jëm ci wàllu li muy dundee ci biir penc ñu ngi tuddee activité utile ak li nga xam ni moom lay jéem a def pour mën a jëriñu ci biir dundam kon dañuy jéem a xool activité utile yi. nan lay amee ci daara yi ak lan moo fay am. daara Ndiagas du Damba récréation di bërëb bu ñuy jàngee diini ak li dundu dund yéwénal dund boobu taax ñu ñuy baaxee activité yu lu ci mel ni axaw ak mooñ الحب منحصر بصحة العقل والتوحيد للهدف قل للدوائر إن الحب منحصر بصحة العقل والتوحيد للهدف القلب في إسلامه علما إنكار مصلحة تدعو إلى الصلف في الحياة تعيش في الدين حكمة إن كان للموت معنى الصبر في الكلف so jang ba ñu koy jang ci biir dara ji araw ak moy am jarign lo am solo ci walum koom nim ñu ngi doon yëngu si walu araw ak tiagé ñun mag ñi ñu koy jël pour jangal ka ndaw yi ne ci bir daayira bi pour ñu man seen bop léegi caagiri boobu mom la ñuy jël di jangal xalé yi pour ñu man ci liggéey ñu gis suñu bop xalé yi gis seen bop بين الصدر والكتف وغير ذلك أحلام مزخرفة ما قيمة دي كل نفس ذائقة الموت بايكو حل مو وهل يجوخ نيو بنين اكتيفيتي تول muy lavage ana naka lay demee. dañoo indi woon cas bi nga xam ni mooy ni ñuy sangee néew néew bi gis ngeen mbokk yi buñ ko indee dañ koo tëral ci taabal bi ak benn mbalaan bu mu indaale ñu sàngoo ko indi ko li ñu waxoon léegi mooy su ñëwee li ngay njëkk a def mooy fexeel ba rocc mbalaan mi te mu am lu ko mu am saatir lu ko muur luñ ko suturaalee léegi dañuy dañ koy dañ koy dindi parce que am na luñ ko saatiree ba pare luñ ko suturaalee dañuy dindi mbalaan miñ ko muuree mu set ñu teg nii léegi ñu am ñetti ndox ndox mi ci siwo bi ndox mu laab la pour li nga xam ni moom lañ koy sangee léegi waxoon naa ni su fekkee néew bi bu muy ñëw dafa set dañ ko sang ba pare du jar nga koy sangaat mais bu dee dafa ñëw am ay taq-taq li ngay njëkk a def mooy boo ko ak ak ndox ak saabu ngeen baa ma nag néew bi néew bu jigéen la mbokk ñoo ko war a sang léegi fii tamit buñ ko sangee janaab ba dañ koy def lan dañ koy sotti ndoxam dañuy wut beneen siwo ñu def ci ndoxam siddéem bi ndoxam siddéem bi dañ ko sotti si yaram mu tooy bu mu tooy ñu bàyyi léegi suñu paree ci loolu ndoxam njël ndoxam gowe wut beneen siwo def ci ndoxam gowe bu ñëwee moom lañ koy sottiwaat ci yaram bi nii pour mu jox néew bi xeet bu xeet bu neex راحة ذكران هل البطالة إلا موضع التأثير bu ñëwee sang nañ ko ci ñetti ndox ah ndox mu laab sangu farata ak ndoxom sidem, ak ndoxom gowé ñu sang ko ñu défal ko genre jital genre ngemba gis ngeen ko ñu jël ser bu gudd wodda ko jël yéré solal ko jël kala kala ko tak yi nga xamni mom lañu def ci bëd yoyu bu ñu ñu solal ko yéré bu bu mag bi mooy ñu muur ko comme nii ñu takk ko léegi suñu paree dañ koy dañ koy sang kon mbokk yi lii moo doon suñu pratique tey. sàng néew nag bu ñu ko waxee ci mim réew dañ koy askanale mag récréation jàngal ñu ñi ndawi tey ñooy magi ëllëg kon farata la ci moom mu teel ko xam bëgg xam ak xàmme moo tax ñu yóbbalu aller retour bu Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy capitaine. ci bi activité yi tuli salam alaykum a ngi wax lu am solo. té modi vivre et exister. xanaa do len lire aller retour tour yeen motax ngeen reer bo len démé ci aller retour. chapitre 12 sunu mam Cheikh Capitaine mang fay wax nan vivre ou exister. mais exister li ci gën neex yamul fofu de. nga exister sa yàlla ndax nit mën na nekk di dund fekk yàlla effacé na ko yàgg na da ko bàyyi mu dund loolu ne lëm léppam lëndëm la yàlla na yàlla musal si lool kon yéen mbokk yi ñoo ngi leen di ñaan ngeen dem lire livre bi di aller retour. ndaw ne sëñ nañ ko yaakaar su fekkee xam-xam la jël def ko wéttal jël gëstu def ko aar na kon bu ëllëg sori yaakaar sañ am ci suñu ndawi askan. récréation à travers les activités utiles. taxaw temm ngir ëllëg am yóbbal للدوائر إن الحب منحصر بصحة العقد والتوحيد للهدف comme ni ñu gisee daara yi gis nañu ni ñuy jàngee gis nañu activité yi gis na ne sport bi tàggat yaram bi lii yëpp nag dafa am jaar-jaar dafa am fu nu bi ak si fii tey comité bu Saint-Louis bi ñu ne bu njëkk ñu ko doon woowee ak si comité bi dafa am ay conseil am na juróom-ñaari conseil ci conseil yooyu foofu la daara yi ne bi neme demee xool daara yi yu gis ëpp ëpp na juróom fukki daara loolu nag dafa am lu njëkkoon am ñu ko doon wooye daaree ngoon ba récréation ñëw am na ñu ko fekkee woon dundoon ko yoon ci ay responsabilité tàggatoon ñu ni tàggat ba tey ñuy taxaw lu fi am dañuy ànd ak ñoom ñu xamal ñu ban jaar-jaar la activité yi am solo yi am ba si fii tey. mbir moo gis am na jaar-jaar fa mu tàmbalee ba yegg si fii tey récréation du doon exception. exceptionnellement mu ngi doore ci atum 2000 ñu duppee woon ko ca yooyu jamono daaray ngoon ana fan la jaar ba tax tey ñuy wax récréation. waaw bu delloo ci début daaray ngoon fii ci Saint-Louis dañuy wax ni daaray ngoon mu ngi commencé ci Saint-Louis en 2000 2000 dañu centraliser woon liggéey bi ci benn camp ci localité bu Saint-Louis muy école Xayar Meng moo dajale woon ndar yëpp. Comme c'était un début c'est axe bi aussi Ross Béthio amoon na camp Raw 2 na camp aussi amone na pour la première fois muy l'an 2000 Non le Daaray ngone tambalé continuer 2001 2001 aussi évolution amna touti ndax jóge nañu bu ci Saint-Louis ci ben camp dem ci ay camp de zone Pikine ak Sor am ben camp Langue de Barbarie am centre am non le continuer 2002 nak le gëna a yaatu ndax même boy xol ci récréation ci culture yi nga xamni ni lañuy def ci daaray ngone 2002 le gëna a yaatu am participation au cadre ci bir culture bi évolution yoy nak la daaray ngone commencé ci zone bo dem ci localité yi ñu jógee ci ben camp ñaari camp muy gëna a yaatu ñu commencé ko ibil ñi nga xamni ne ñu ci daara ji ñi participer ci bir daaray ngone ni muy évoluer nak at mu nekk mu am ay yokkute yu ci am ñuy avancé di dem di dem ba 2014 2015 am na ay changement yu am solo yu notoire yu am ci biir programme mu Ngone am aussi ay ay ay ouverture yu gën a yaatu yoo xam am na ci Daaray Ngone ñu continuer ci loolu ba dem 2019 mën nañu wax mooy at mi mujj ci Daaray Ngone ak ampleur bi Daaray Ngone daan am 2020 mbas mi ñëw dara xewul 2021 ñu reprendre timidement mais ci niveau section yi qui a relancé la réforme bu MAC bi am ñu jugee ci daaray récréation 2022 2022 la première édition récréation nga xam ni kon jugee nañu benn phase dem une phase bu gën a yaatu ay réformes yu am solo am sunu sang bi capitaine Il affaire bi ci beneen niveau jógee nag ci phase de formation mais dem ci phase de recréation muy deux ñu def ci liggéey yu am solo mu tombeek installation comité MJ rawatina ci zone Saint-Louis ñu liggéey ci liggéey bu yaatu ak sept conseil yi nga xam ni moom la ñu am conseil bu nekk am ay camp 2023 ñëw nekk deuxième édition ci récréation ba ren 2024 di troisième édition ci récréation tombeek thème bu am solo bi nga xam ne moo boot récréation bi muy nafar dund ñi seetlu ni jóge nañ ci jéego jëm ci jéego loolu nag li koy wundu mooy orientation yi nga xam ni moo ànd ak liggéey bii di récréation ci activités yi yaatu jaar ci daara jaar ci activité sportive activité utile kon nag ñi ñaan yàlla liñ ci dund yëpp ci atum ren yàlla def ñu jariñoo ko ci barke góor gi daaray ngoon ba récréation ñaar fukki at ak ñeent ci ren at mu jot ñu baaxoo di am thème yuy dëppoo ak doxalinu jamono. Sil de Cade buñ ko waxee wax daaray ngoon histoire daaray ngoon nag wax dëgg yàlla ni mu daan demee dañ daan préparer cadets yi bien avant ndax deux mille euh, colonie deux mille dañ jëloon ay cadets ci axe bu ne dajale leen ci benn. Euh, roq bu ñuy wax sibi Ponti fa leen doon former pour bu ñu génnee nekk ay boroomi taxawaay nekk ay encadreur nekk ay cadre ci biir daara yi loolu moo doon première bi biñ ci demee ci biir yàlla dogal na année bu ne am na thème bu ñuy préparer pour année boobu thème bu daaree ngoon ni ñu koy daan préparer nag mooy dañuy dajale mbokk yi nga xam ni ñoom ñoo nekk si axe yi kenn ku ci nekk ñëw indi sa xalaat selon ak ba ngay dund kenn ku ne indi xalaatam ñu indi thèmes yi teg après ci sept thèmes yooyu ci la ñuy ba génne ci benn tem woote waat daje ñu waxtaan ñun ñëpp ba dàkk ko ci thème boobu mu continuer thème boobu ci lañuy sukkandiku ba defar ci programme boo xam ni ci programme mu Daaray Ngone lay nekk loolu moo daan entre mille ba deux mille dix-neuf yi. mën nañ ci wax quelques thèmes am na thème bu doon bu tuddoon ak bii wal bi'a mooy xale ak environnement xale nan lay sàmmee environnement bi ba di sàmm garab sàmm bàyyi may ci environnement bi xam itam valeur environnement bi nan la koy saytoo mu dëppoo ak li nga xam ne moom mooy nit ku nite am na ci thème bu ñu tuddee ak tifl wal faqr maanaam xale ak pauvreté maanaam ñàkk naka lay dundee ñàkk googu ba yëg yàlla ci biir naka lay xamee dogalu yàlla ci biir ni mu bindee doomu aadama teg kii am kii ñàkk nan lay fexee ba li ñuy tuddee alxaqd wal xasad wal euh, kibr du am selon ci ni muy xamee ni ñàkk yàlla ko bind am tamit yàllaa ko bind ci lañ demoon ba xam azaka ci boppam lan moo tax yàlla sàkk ka ak ñi ko soxla ñi ko war a jox ñoo doon ñan ci la ñu demeen ba xam ni euh, ki loxoom kawe yàllaa ko teg ki loxoom suufe yàllaa ko teg ki loxoom kawe du xeeb ki loxoom suufe ki loxoom suufe tamit du du du du lu du du naw tamit ki nga xam ni loxoom dafa kawe ndax xam ni yëpp yàlla la jàngal ci biir côté boobu itam maanaa sildekade euh, xalitu talaia fi bina il mujtami al misali manchud maanaam am na colonie bu Serigne Mouhamadul Moustapha defoon 2004 te defoon ko fii ci Joxoor colonie boobu ci la ñu tibbee thème bi moom ba ñu waxtaanee ci la ñu génnee thème bi maanaam euh, rien ne sera plus comme avant loolu ci la ñu tënk thème bi pour penc mi ñu man fi jëmbat ay responsable yoo xam ne ëllëg daañu raw Seydina Ali dañu raw abou bakkar dañu raw sayyidatuna aisha ci côté jigen ñi jëmbat fi ño xamne ëlëk ñoñu lu doon taxawé ci kanam képar yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi dañ ko mën taxawé ci képar Cheikh sayyid mohammed Moustapha ak capitaine amna tém buñ doon tuddé atifl wal adab al ijtimaia mana xale ak téggini mo war am ci pench mi naka lay xale di jolé mana xale nan lay joxé cër mag ki ko mat baay mu xamni ne la ki ko mat yaay mu xamni yaay la teggin bi ci sharia jangale yep jangalon nañ ko xalé yi ci côté bobu amna timit tem buñ doon tuddi atadamun ka thamratul adab al ijtimaia mana solidarité ni mu wara nekké ci pénc mi luñu organiser mu and ak ay teggin kenn ku ci nek baye xel ni dafa wara a moromam kenn ku ne baye xel ni itam nit nit rek moy garabam ba kenn ku nek mana a dund dund gu sel da bañ doon ko xam da ngay dund li ñu tuddee danka am na beneen thème bu ñu doon tuddee a taallum wa taalim xayru wasilatin lil bina wa takwin maanaam jàng ak jàngale mooy jumtukaay bi nga xam ni moo gën a baax pour mën a jubbanti penc tabax ko mën a former doomu aadama tamit ba mu mën doon doomu aadama ndax inni jaa'ilun fil ardi xalifa loolu du ay wax rek dañu war former nit ki ba ba mat yàlla njaboot loolu tamit duggoon nañ ca am na beneen thème bu doon jàngale ci atifl mustarshid benn tarbiya wa takwin maanaam xale mustarchid bi pour mu mën jóge ci cadre mustarchid jëm ci cadre rushd ak rachid fokk ñu yar ko fokk ñu former ko ba nga xam ni bu génnee foofu rek dana mën a yéeg ba àgg fa nga xam ne fa lañ ko bëggee ci wàllu njàng wàllu xam wàllu te éducation wàllu apprentissage donc yooyu moom bokk na ci yi nga xam ne jàpp tënkoon nañ ko ci forme bi nga xam daan nañ ko defee daaray ngoon jàng ak jàngale bu làmboo yar ak teggin lañu tënk ndaw ñi ci diirum ñaar fukki fan ci atum ren ji lépp ngir nafar dund fii ci diwaanu Ndar Géej gannaaw bi nu visité daara yëpp gis nañu saal yi découvrir ko gis nañu daara yi ni muy demee gis nañu activité itali am taaru Ndar Ndar taaru gi mu taaru récréation taar gi nga xamante am na tey am na yóbbal yoo xam ne mën nañ ko jële ci récréation mu nekk ay ay kantu nekk ay baat yu tënk yoo xam ne benn baat ak mën defal dundu nit kon dañuy jéem rek jël sunu yóbbalu bis bi. maam Cheikh Ahmed Tidiane ku xas ba weddi sa bopp xajatu suñu maam capitaine nee yiw. kenn du ko xëccoo dañu koy yaatal suñu moom capitaine nee noppi décision la tey tactique la maanu garantie la suñu moom capitaine nee na ku miin yàpp te ku yàpp sànku jaajëf comme ni ngeen ko gisee yaakaar naa découvrir ngeen Saint-Louis gis ngeen Saint-Louis jaar-jaaram mag ñu baax ñi fi jaar découvrir ngeen sunu thème central xam ngeen tey récréation na lay demee ci biir Saint-Louis gis ngeen activité utile yi gis ngeen sport bi gis ngeen jaar-jaar li des mooy ki nga xamante ni ma wara lii yëpp kooku mooy sëy Cheikh Mouhamadul Moustapha si kon yal na ko yàlla sàmm yal na ko yàlla dëgëral yal na yàlla guddal fanam moom mi nga xam ne tey moom mooy tàggat nit tàggat xelam tàggat xalaatam tàggat yaramam mu nekk nit koo xam ne dina jëriñ diinem jëriñ réewam dundam nekk dund bu utile kon kooku am ñu fayam yal na nu ko yàlla fayal ñu ñëw woon tey Wol Leen kon ñoo ngi sant ñëpp di ñëpp di jaajëfal ñëpp. ñoo ko gisandoo ci reportage bu am solo boobu noonu foofee ca Saint-Louis ñu àndoon ko ak suñu mbokk Souleymane Bary Souleymane Bary wanaat nañu beneen facette ci Ndar wanaat nañu ndax lien bi nga xamante ni am na ko ak diine Saint-Louis. am na ko ak tarixa bi waaye itam am na ko ak daairatul mustaxidin wal mustaxidaat demal ñu ci bërëb bu sell boobu noonu nga xamante ni suñu maam Ahmed Tidiane si Al Maktoum fa la ganee àdduna Serigne Moustapha li mu liggéey ci Sénégal ndax géej bokk ci ba tax ñoom ñu xam loolu daal di ciy bay seen waar lu toll ci juróom-ñaari daara daara bu ci nekk ak activité bi nga xamante ni moom la amee mbokk yi jàngale nañu sang néew ngir bàyyiloo waat ndaw ñi seen bopp waaye itam biir classe yi nemmeeku nañ ci njàngum alxuraan Hadis, ak li nga xamantene ne mooy mak ñi ngir yalla li kilifa gi waxoon ne du ko muy ñaké jang ak ñaké yar tax ñomit ñu ci bay seen war ba lepp lu nga xamantene ne soxol na dundu doomu adama ñu daal leen koy jox lolu lepp teunku ci tem bi nga xamantene ne lañu andi ren tuddee ko nafaax dundu kon nak duñu def luddul jaajeufal ci liggey bu am solo bob nga xamantene ne amal nako fofé ci Ndar